mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar leen wax ne ñu ngi ci huitième édition Saladel ba léegi fii ci Tëngéej ma taxaw ci bergerie boo xam ni kilifa gi dina ma wax fi may fan ak moom mooy kan champion bi ziar dooli ziar bu baax a baax ñu leen di ziar di leen bëggee di am contentement bu baax si fekk si ñu fekk fii si Rufisque salle Adel huitième édition ci terrain Ndefane fii ci Rufisque quoi. macha allah euh, tribunal la. Maguette la. Maguette Bergerie. Euh, Bergerie Mourchid.

waajur nekk ci élevage bi suñuy maam ñu nekk si ak ñoom ba diiraan yi ñu fi jóge ñu continuer élevage bi voilà ñoom ban ci nekk ñu ngi ci xar xam naa xaru local yi. yéen naka ngeen def ba def dugg ci laadum bi. waa d'accord xaru local yi lañ nekkoon après di ci nekk di ci nekk ba par la suite xam nga laadum tam bi mu xewee. daanaka yàggul waaw ñu dugg ci laadum bi quoi. liggéey. waaw ñun fi ñu toll nii sang bi ñu liggéey ñu ngi ci sangu Cheikh Diop ak sangu. Euh, Boy Séeréer bi ak euh, Sanwu Abdou Fall bi aussi ak Sanwu macha allah. macha allah waaw waaw premier fekk benn maal bu laal curur maron kal la. waaw boobu mooy nongo daar lañ ko tuddee moom nongo ndongo daara ndongo daara lañ tuddee waaw moom mu nekk doom ci Omar Omar nekk euh, doom ci Mahfouz Mahfouz nekk ci doomu Abdou Fall bi ma lay wax noonu waaw yaay ji di nekk surtout macha allah quoi bu Papi ñaataat. waaw am na deux moom waaw. ma gis ko mu taxaw ak ñaari curur. tur yooyu waaw cuulul yooyu moom juru leen quoi. waaw cuulul yooyu frère am bu mu bokkal yaay moo leen jur. mais ana seen yaay cuulul. waaw yaay mooy bu ñuul bala ngay bu weex bala gis na si bâche bi. bu weex laal tur cuulul ba. waaw laal cuulul mooy seen yaay. moom yéen ko juddulee wala yéen a waaw ñoo ko juddulee waaw. femelle bi ci boppam. bi ñoo ko juddulee ñoo juddulee yëpp. ñaata portée. fi ñu toll nii mu ngi ci quatrième portée. Euh, bi mu dendal am noir bi noir ba. waaw femelle bi mu dendal aussi ñoo ko juddulee mook maal bi ngay wax noonu ñoo bokk yaay waaw ñoom ñaa ñoo bokk yaay mais bokkuñu pàpp ko mbote beneen mbote ba def ku ko jur waaw mbote bi si des maal boobu ci biir moo ko jur maal bi ak femelle bi teg noir boobu di wënde boobu xanaa añal la de waaw bi mooy premier porté bi waaw mhm. ma ñëw deuxième box bi fekk fi benn kii euh, espoir la wala. waaw espoir la parce que am na 13 mois aussi. 13 mois waaw espoir am moo ay añal ko añal. seen Euh, non production bi ñaari maal bële moo leen jur. Ah. Euh, yeneen ñaari ci des dama génnoon sama beneen collègue moo ma mayoon tëb ci maalam ma juddule ci ay seex muy ñaari noir blanc yi ngay. mais yëpp yaa ko juddule laa yëpp maa ko juddule. xar yi même si man lañ juddoo. espoir bi mooy calpe. calpe nekk am 13 mois maa ko juddule aussi maa ko juddule maa yaayam. Euh, mais dama seetlu yow say xar dañuy costaud quoi. Hmm. waaw parce que man li waral loolu mooy damay liggéey ci. Euh, giir gi nga xam ne dañuy am doole. waaw dañuy am doole dañuy am si giir googu laay liggéey quoi moo waral lii nga gis si xar yi nii lu ñu am nga ni. waaw añal yi am nañu huit mois kii moo leen mag moom am na neuf mois quoi. waaw bu maron boobu moo mag waaw. kële six mois. am na six mois moo si gën a xale quoi. ah très très très belle exposition rafet na. Euh, euh, da bokk Adel. dañu bokk Adel waaw. ñun depuis première édition ba léegi. léegi waaw depuis jardin public ba. macha ah, ñu ngi si fii. yaakaar naa si nekk ci liggéey. waaw man ak sama grand bu ñuy wax Pape Fall. waaw ñoo nekk ci bergerie bi quoi. fan la bergerie bi nekk. bergerie bi mu ngi nekk Rufisque Arafat 3 watu pharmacie Rasoul. Uh-huh. côté mardi bi ko numéro bi. numéro bi 77 046 51 65. waaw mu def 77 aussi 537 34 47. rafet na waaw kontaan nañ bu baax a baax. Merci beaucoup.